madinatul munawwara wala dëkk bu ñu leeral mooy dëkk bii nga xam ne fi la sang bu tëdd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa tëdd digganteem mag màkka mi ngi toll ci ñeent téeméer ak juróom fukki kilomètre siiwaayu madine mi ngi tàmbali ci 662 jamono bi nga xam ne ci la suñu boroom joxoon ndigal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu gàddaay jóge màkka jëm madina foofee ci madine fa la ñu njëkk a nguur goo xam ne lislaam rekk moo koy dox di ko doxal am na sax ci yenn ci gëstukat yu nettali ne lu ëpp téeméeri tur dëkk bi làmboo na ko madinatul munawwara mooy tur wi ñu ko xamee waaye bu njëkk mi ngi tuddoon yasriba di dëkk boo xam ne suñu borom moo ko sellal waaye moo ko aarit aaral ko boppam ci loolu buxaari mi ngi ñuy nettali ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne madina dañu ko wormaal ku fi dugg indi fi lu fi bokkul mbaa nga dugal fi loo xam ne bokk fi yow ci sa bopp ci sa kaw lay dellusiwaat te dinga am merum suñ boroom amit merum malayka yi ak it merum àdduna bi yépp sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci beneen xadis rek ne képp ku ko man na nga faatoo fii di madina ndax ëllëg damay ràmm ñi nga xam ne ñoo fi ñàkkee seen bakkan sa alayhi wa sallam bëggoon na lool te fonk it dëkk bu sell bi di madina ak it a dëkk bokk na ci ñaan yooyu rek mu daan wax ne yow sama boroom yàlla na nga may madina ñi fi dëkk lu ëpp li nga may màkk ak ña fa dëkk yow sama borom yàlla na nga def nu bëgg Medina comme ni ñu bëggee màkka mbaa sax nu ko raw Madina di dëkk boo xam ne dafa fees dell ak ay xéewal foofu fa la barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ak it jàkkaam ju sell jooju kii nga xam ne moo gën ci mbindeef yi mi ngi jàngal ci benn xadis wax ne képp ku dugg ci sama jàkk ji ngir jàng fi mbaa ngi jële fi tuyaaba suñu borom dana la ko defal tey it dana la defal nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo daanu ci yoonu lislaam abdullahi ibnu omar di ñu xamal ci benn xadis ne yonent bi saa sallam wax na ne genn julli goo julli ci jàkkaam ji moo ëpp pay junni julli yoo julli feneen fudul ci jàkkaam ji xanaa ci lu dul mu doon màkkatal mukarram fa nga xam ne fa la kaaba ga nekk raw du yonent bi sallallahu alayhi wa ci Médine digal nañu képp koo xam ne suñu borom may na la tawféexu nga dem penku nga dem fa visiter ko ndax suñu borom dana la defal ak tawféex waaye dana la defal bu yowmal xiyaame nga bokk ci ñi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ramu madin yemul ci loolu ndax jàmbaari lislaam yi fa la ñu tëdd ku ci mel ne abu bakar siddiq ku ci mel ne omar ku ci mel ne usmaan ibnul affan ak yeneeni jàmbaar yoo xam ne si ñoom ñépp ñu nga fa tëdd nemmeeku ci armée li bàqiya dana may képp ku fa dem nga mën a fàttaliku jàmbaari lislaam yi nga xam ne budul woon ak ñoom a tey lislaam fay ba faw ngir ñoo samp drapeau muy law ba fii ba yowmal xiyaam